bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram wa xadimihi wa man iqtada bi hadihim ila yawmi din mbokk yi ànd ak ñun ci waxtaan wi te teew ci jotaay bi wala ñu ñàkk fee teew ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di am mbégte di dajewaat ak yéen ci barab bu tedd bi di jiital ci nuyoo bi ak ziyaare bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér yàlla defal ko ak jàppandal ba naan yëpp egg itam ànd ko mboolem taalib bi di jagleel ak nuyoo ak ziyaar kuréel gi nga xam ne mooy amal jotaay yu am solo yi ci weeru koor bi muy muqaddamatul xidma ci seen jiit seen jiit di Serigne Buso rafet rafetlu jotaay yi ci li weesu ak ci li ñu toll dellu siwaat nañ tey ci beneen jotaay muy jotaay boo xamante ni dana xaw a nuru luy mottali jotaay bu ko jiitu woon ci weesu amoon na benn jotaay buñ jagleeloon njàngum Tuuba ak tolluwaayam tey nag jotaay bi mu ngi jëm ci njàngum Tuubaa ci lii ñu ma ca projet bii nga xamante ni Cheikh Mouhamadou mu Mbacké moo ko taxawal ànd kook taalibe yi yépp di ko jëmmal projet boobu naka la tëdde ak ci yan anam lañ mën a jaar ba saytu ko ci wàllu koppar loolu di tomb boo xamante ni bu ama am solo la ci ëllëgu dëkk bi ak waa dëkk bi ba ci sax ci ëllëgu réew bi ndax dayoo bi naal bi am la muy tomb bu am solo boo xam ne jox nañ ko kiñ ko kuñ ko war a jox kon tey dëppook ñaar fan ak juróom-ñaar ci weeru koor wi 1443 tolloog ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril weeru tubaab 2022 ci la jotaay bi di am ki ko jox mën nañ koo présenté ci ñetti baat sëriñ la inspecteur la docteur la sëriñ la ciw askan ndax dafa juddoo ci njabootu sëriñ sëriñ la ci jikko ndax da koo jàng dafa jàng xam-xamu diine ba noppi di ko jëfe buñ nee loola sant bu buñ toppee lawtal bi daf ñu yóbbu ñoom rek buñ tuddee rek sëriñ Maxtaar Bintaloo mu nga xam ne xam nañ ko ci kàngaam bi daroon sëriñ Touba radiyallahu anhu di ko jàppale ci liggéey bi buñ ko tuddee ni sëtam la kon dañuy xam ni sëriñ bi mu jàng-jàngum diine nag di góorgóorlu ci jëfe diineem ak di tasaare xam-xam kon it sëriñ la ci wàllu jikko inspecteur la ndax ndomba tànk gi mu yor xarañ ak góor góorgóorlu ci liggéeyam ci jàng ak jàngale ak tasaare xam-xam tax na mu egg ci foo xamante ni léegi doonatut ñu yor ay ndonga di jàngale nii rek waaye dafay bokk ci ñiy xalaatal système bi xalaatal njàng mi ak ñi ñoom njàng mi ñu ñuy tuddale concepteur kon inspecteur li ci wàllu njàng ak jàngale waaye docteur la ca muy ndomb ak tànk lijaasa bu kawe ci lijaasa yi nga xamante ni moom lañuy ñuy jàng di am loolu it li ko may ak farloom ci gëstu ak jàng ba egg ci foofu mu egg dëgg la xëy na ñu bari nag xàmmeewuñ xar kanamam fii ci jotaay bii waaye nag nit la koo xam ne macha allah. yal yàlla xeb dolli ku bari ay yëngatu la waaye nag yëngatu bi dafa nekk ci suuf bariwul lu muy jël kàddu bariwul lu muy def ay waxtaan xëy na noonu la ko xëy na noonu la ko bëggee moom waaye nag ku am ay activité la ci wàllu ay yëngatoom yaakaar naa du ñàkk ci jotaay bi ak xale yi nekk ci biti ak ñeneen ñu xam-xam yi teel gis nañ weeru koor yépp li muy def ci page Facebook ci ay yëngatu te tàmbaliwu ko ren tudde ko wajibaat ramadaan yi berndeel koor lu jëm ci xel yi di ko di ca wax lu jëm ci wàllu alquran tafsirul quran ak yu mel noonu bind na tamit ay téere yooyu kon ay yëngatu yu baree bari mu doon nag ku farlu macha allah ci lépp luñ ko dénk ci mu war koo saytu ci wàllu liggéey bi tomb bi ñu ko jox wax naa ni jox nañ ko kuñ ko war a jox ndax naal bi da cee am pàcc boo xam ne moom mii lañ ko dénk muy li jëm ci wàllu njàng mu kayo ci xam-xamu diine ak kalaame arab muy kulliyatul dirasatil islamia wala arabia moom mii moo ko jiite ndax xam nga niñ ko tëralee euh, ay pàcc-pàcc lañ ko def waaye boobu moom moo ko jiite mu bokk tamit ci kuréel gi saytu li nga xam ne moom muur mbooleem kuréel yëpp dafa am beneen kuréel bu ndaw bu leen tiim li di ko tudd allajna tawjihiya mooy comité de pilotage moom mi membre la ci kon ki ñu koy defal mooy ak docteur Serigne ak docteur Abdou jox nañ ko ki ñu ko war a jox dañ koy ñaanal rek yàlla defal ko tawfiq <coughs> ci li ñu séntu ci moom mu def ci lu fare kaw njort ñu bañ a téye yàlla tomb bi di euh, naalu Serigne Mountakha Mbacké naalu yoonu murid ci wàllu jàng ak jàngale ak ci yan yoon lañ war a jaar pour saytu ko ci wàllu koppar al mashru' tarbawi lil muridiyati wa turuq tarbawi sëriñ Abdoulaye kon gàddu ba bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsaanin ila kon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi leen di nuyu nuyoo bu sell bu ànd ak cant ak i ndokkeel ci jataayi xam-xam yu barkeel yi di amee fii ci barab bu sell bi di jumaay Tuubaa waaye di amee ci jamono yii di jamono yi weeru koor di ñaan suñu wa taala yënguti yépp yàlla na ko suñu borom nangu te defal mu mu yàgg koo fekk te yàgg te may jiital ci nuyoo bi ak cant bi ak ndokkee bi al fadila cheikh mohamadin al muntaqa xafizahu llahu taala wa raa di ko ñaanal suñu borom tabaraka wa taala defal ko xar baax yi yàgg fi lool te wér ma ciy teg mbooleem kilifa yi ak mbokk yi nga xam ne teew nañ ci jataay bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci jumtukaay yu xarale di beral ak ziar akub cant ak ndokkeel daayiratu muqaddamatul xidma ci njiital seen aafiya bu saal imam ngir boole gën boole ci liggéey xam ne kuñ ci boole ko nekk yéene nañ la aw yiw yéene nañ la njariñ kon ci wàllu woowu moom lañ ciy sant bu baax a baax di leen ñaanal tawfiq ci liggéey di am mbégte lool ci seq ak yéen bi ngir war fee waxtaane benn togg bu am solo boo xam ne yitteel na diine yitteel na tariqa bi yitteel na réew mi ba yitteel na àddina bépp te togg boobu mooy naaru daaree Cheikh Ahmadul Xadim ji sëñ Mahamadul Muntaqa yëkkati nga xam ne daf cee wuutu ci tawféex suñ borom daf cee wuutu ay waajuram ya ko jiitu ci xilaafa bi wuutu ci ay magam ya ko jiitu woon ci xilaafa bi naal bi di daaree Cheikh Ahmadul Xadim ji sëñ Mahamadul Muntaqa moom la jàppe muy sasam lu gën a rëy ci xilaafaat bi ngir xam gëm xam fi mu tolloon Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu waaye solo si xam-xam ak jàngale ko ak yara am te moom mu xam ko lool mu mel ne Cheikh Mouhamadul Muntaqa jot na séqi ay jéego yu dëgër ki sottal naal ba li ci aju ci ay tabax daanaka féete na boobu waaye mu xam ne li tabax yi di am am solo li ko ëpp solo mooy doxal njàng ma doxal daara ji ba du masa laal suuf xam ni koy wax bu ngeen seetloo ay kàddoom ci wàll woowu la gën a fese ci jamono yi mujj kon mel na ne daaj bëgg-bëgg Cheikh Mouhamadou Mountakha boobu gàttandu yéeneen jooju moo tax waa daayiratu muqaddamatul xidma tànnal leen thème bi tudde ko al mashru' tarbawi lil muridiyya wa turuq tanwinihi naaru jàngu bu yoonu ak yoon yi mën a jaar ba euh, sottal ko kon feeñ na ci thème bi ne ñaari pàcc ñoo séddale ñoo ci ci la thème bi séddale ko xaaj bu njëkk bi mooy jëmmi projet bi jëmmi naan li mu tëdde ak li mu làmboo beneen xaaj bi mooy yan yoon lañ mën a jaar ba sottal ko ci alal moo tax dinañ tënk waxtaan bi ci ay tomb yoo xam ne sëñ Cheikh junj na ko ci biir waxtaan bi sëñ Cheikh Mbacke ñoom waaye dinañ ci jaar ci lu gàtt fi li ñuy njëkk a waxtaane insha allah mooy reen yi taawu naalu Cheikh Mouhamadou Mountakha bi ndax mën nañ ne sosu kon projet bi yoon bu gudd ci la jaar ba agsi ci loxoom mu am lu ci yéene am lu mu ci bëgg a soxla loolu mooy tomb bu njëkk bi ci topp mooy yan màndarga ñoo ràññeekle woote Cheikh Mouhamadou Mountakha bi gis-gisam ci wàllu jàng ak yar ci woote bu suy boobee mu def ñu toog ci ñu daw toog ci xalaat am na ay màndarga yu ko ràññeekle ci taxaw ci lu gaaw leneen li ñuy war a waxtaane mooy jubluwaay li nga xam ne moom lañuy ñuy ci naal bi bi ci tegu it mooy xaaj yi nga xam ne ñoo ñoo nekk ci biir naal bi bi ci mujj nag mooy yan yoon la ñu a jaar ba sottal ko ci wàllu alam kon mel na ne tomb bi ñu war a njëkk a waxtaane mooy euh, reen yi taawu naam daara Cheikh Ahmadul Xadim ji day mel loolu bu koy wax ñu ngi xalaat taarixu al mashruu tarbawi lil muridiyya mbokk yi xam ngeen ne boole jàngale ak yar mustadan bi nekk soxla si gën a yitteel ci woote Cheikh Ahmadul Xadim bii nga xam ne keroog ba mu koy door ginnaaw ba Maam Mor Anta Sali wàccee liggéey dafa dajale woon ndongo yi nekkoon ci daara xamal leen ne leen képp koo xam ne njàngoo kese la fi andi woon mën nga ma nuyul say bokk nga dellu say bokk ku bëgg li nu bëgg nag na ñëw mu ànd dox ci doxin buy loolu li muy wundu ci sunu dégg gi mooy lim naan ma woon araada ma ma naa ma arad naa jooju day mel ne mooy doxinam bu bees ci boole diggante yara ak jàngale doxinam bu bees woowu mu doon ko dundal ci ñu néew ña desoon ca daara ji ginnaaw ba defee woote woowu ndax ñi ëpp dañoo gàddaay daara ji ndax wane ne njàng kese leen fi andi waaye ña desoon ko su néew mu tàmbale ñoom di dundal ci ñoom euh, gis-gisam boobu ci wàllu yeesal diine def ko ci ñooñu ak ñëpp ñi nga xam ne wuyu si nga nañ woote bi ginnaaw loolu moo xam ci Mbàkke Kajoor wala ci moo xam ca Mbàkke Kajoor la wala ci Mbàkke Bawol wala ci Daaru ba ci tuubaa ak la ci ginnaaw Touba sax li wér te wér mooy sëriñ bi daal yittewoo jàngale ak yare musta dañ di nekk soxlaam si gën a ñor musta nangu dara gàllankoor moo ko daan saytul boppam di ci xërtal njaboot bi ak taalibe yi ci atam yu mujj ci Touba ci la doon jubbantiwaate njàngum xam-xam doon yeesalaat anam bi ñu koy yore ci at yooyu ci la dénk maam Thierno Birahim mu saytu njàngum xam-xam am na am mbooloo ci ay ndaw yoo xam ne ba muy tàmbali loolu la leen ko joxoon sëriñ bi moo yëkkati ay ndaw jox ko maam Thierno sëñ Mouhamadou Rachid Ndiaye nettali na ko ne da ko jëlee ci waajuram sëñ ma bànj xujja Ndiaye ndax sëñ ma bànj ci ñooña la woon bi leen sëriñ bi di jox maam Thierno daf caa boole ay kàddu kàddu yu am solo daf ne ko Ibra ñii ma la booleel dama bëgg nga ànd ak ñoom ngeen raxasal ma sama der nee na maam na ko ma yow sa der am na dara luy gàkka dañ di ko raxas mu ne ko aha doomi soxna yépp dañoo wax ne dama fay jàng bi ma bëggoon li ma la xamal boo ko xamale lee nii àdduna dina dox ba ku amati gàkk bu la jaaxal bala nga caa am lu la reer dangaa ñëw Tuubaa ko mu ne ko bu boobaa dinañ xam dama fay bi wala dama ko jaxalaat kon sa wu rëy woowu la sëriñ bi tobbiloon maam Thierno Birahim ci ndaw ñoom nga xam ne ñoom la ko bu ci jox ci eh, bi mu nekk fii ci Touba ci at bi mujj waaye sëriñ bi xam ne ki ñuy yar di ko jàngal ku ñuy dimbali la te ndimbal na ca fekk loxol borom mu daal di wëlbatiku ci ndaw ñi ne leen yéen itam njàng mii ma leen sant bu mu yàq ci liggéey bi leen taxoon a jóg dara dama bëgg ngeen di kobar dama bëgg ngeen di paaka te bañ di kobar ne leen gobar genn wet rek lay dagg ne paaka nag day mën a dagg ñaari wet ne leen dama bëgg li ngeen war a xam ngeen xam ko li ngeen war a mën ngeen mën ko bu njàng mi yàq liggéey bi bu liggéey bi yàq njàng kon lii la sëriñ bi dénk ndaw ñi ñu nga xam ñoom la joxoon maam ci am ngir dundale ci dekkal ci daara ji jubbantiwaat ko yeesalaat ko kon loolu mel na ne aw tëraliin la ci wàllu jàng ak yar ab système éducatif bu matale nag bu jekk bu am équilibre boo xam ne sëriñ bi kon moo ko sampoon mu sampoon fondement bi ci bi muy nekk Touba njëkk muy dem ci géej gi te tegoon ko ci jàngale xam yar yeet ak tàgg yaramu ndaw ñi nga xam ne ñoo toll ci foofu ba seen yaram sawam ba mën a fag lu lew ci seen ñaq ku ne xam ne ne daara jooju def na ay résultats yu am solo ay kilifa ay kàngam génn ci daara jooju bokk na ci ñooñu nag ñaar ñi nga xam ne ñoo njëkk a wuutu Cheikh Ahmadul Khadim ci xilaafa bi muy sëñ Mouhamadul Moustapha ak sëñ Fall yaa ngi suñu borom yokk nañ gërëm waaye ay daara yu baree bari juddoo ci daara bi kon mel na na daara yooyu la ci sëriñ bi doon séntu ci njariñ suñu borom sagal na ko ci ci kanam mu mel ne ci mujjantalu sëriñ bi ci njaareem ah, amoon na yéene taxawal jenn daara bu mag yoo xam ne dina gën a mën a misaal gis-gisam ak jaar-jaaram ak eh, ci ci wàllu jàngale ak ci wàllu yàlla loolu mooy li sëriñ Mbàkke Bousso doon junj ci benn lettre boo xam ne daf koo bindoon gouverneur général bu AOF e di Jules Brévier di ko leeral rek sëriñ bi bi muy ñëw Touba euh, aajo yi nga xam ne moom la suñ borom dagaloon aajo woo ko te mujjul man ci ak dundam wax ko ne ko ñetti ñetti soxla daal lañ ko xamal yoo xam ne Euh, jotutoon a sotti ci dundam ba ca njëkk mooy ñu tabaxal ko jumaa ci Touba bi ci tegu mooy bëggoon naa aji def ci ay taxawaayu suñu borom dogal ko bi ci des nag mooy bëggoon naa taxawal daara ju mag ci Njaaréem wala ci Touba daara ñoo xam ne fu waaye mën a nekk ci Sénégal te bëgg jàng xam-xam da nga laxas ñëw fa jàng xam-xam loolu kon mel na ne ab bëgg-bëgg la woon boo xam ne euh, sëriñ sëriñ bi. amoon na ko bëgg koo samp fii ci Touba wala ci sañ sëñ Mbàkke Buso nag ci lettre bi mi wax ne daara jooju sëriñ bi fàgguloon na ko ay téere yoo xam ne moom rek ko ko amoon ci jamono yooyu tàggataloon na ko it ay ndaw yu xereñ ci jàngale fànni xam-xam yi ñu fa war a jàng waajaloon na it ay jumtuwaay ak matériel bi koy tabax waaye ni ngeen ko xam daara jooju bu jul taxaw ba sëriñ bi ñibbisi Touba kon lu mel ne Cheikh Mouhamadou Mountakha xafisahu llahu taala yéene sëriñ bi ci daara jooju lay xeeñtu kinaalam bii bëgg samp daara ci biir Touba yoo xam ne day boole diggante jàngale xam-xam diggante nazariya ak tatbiq ak pratique diggante jàngale xam-xamu diine ak xam-xamu jamono diggante yittewoo tay te nag daara jooju comme na ko sëñ Mbacke Moussa waxoon du daaree Touba rek du daaree ñaari rek daaree Sénégal sëñ Mbàkke bi sa def loon madrasatu takunu rihlatu Sénégal ilayha fi al-ulum al-arabiyya shar'iyyatiha wa alatiha waxutoon ne madrasatu takunu rihlatu muridin waaye rihlatu Sénégal kon daara jëgu daaree Sénégal gépp la fu waaye mën a bokk boo bëggee yokk sa xam-xam bu boobaa da nga mën a dikk ci daara jàng xam loolu ñu wax kat moo feeñ ci woote sëñ Mountakha bi mu njëkk a def ginnaaw bi mu toogee ci xelaat bi loolu mu ngi nekkoon le 5 février 2018 ay kàddu yu am solo yu baree torop dañ cay jukki rek yenn yoo xam ne dañ ciy wét dañ koy niitoo ci jataay bi la mu wax bokk na ci moom sëñ Mountakha mu ne doon naa xalaat ne bu ma amoon baat de dinañ def jàngu boo xam ne yoon wépp a koy bokk kon mel na ne loolu yéene lool day wax ne jàpputal na sax suñu borom dina ko dogal daal ni ci gàttal rek sëriñ bi joxoon sëriñ bi junjoon na ko ci taxawaayu boppam waxoon na ne yàlla tabaxal na ko jàngukaay boo xam ne sotti na ba noppi xam naa ma ngay junj bil muntaqaa lii madrasatan biha yazulul ada wal jahl wal kam daal waxaat liggéey bi yaatu na lool maanaam liggéeyu xalaat liggéey bi yaatu na lool waaye li ci jiitu nag mooy xam-xam ndax ni mu ko bëggee moom sëriñ xam-xam rek ko mën a delluwaat ne liggéey bi yaatu na lool waaye nañ ci jiite lii ci daal di soobu tàmbale ko na nag nañ tàmbalee ci door a dal alquran ba ca njobaxtan ba ca njobaxtan lii la sëriñ bi Muntaxa wax daal ne liggéey bi yépp dinaa ci def sama kem kàttan ci liggéeyu xalaat waaye wàll gi nag mooy ëpp doole wàll gi nag moom mooy ëpp doole xam ne kon day mel aw sasam ci xilaafaat yi moom mooy taxawal daara ji saytu njàng nañ njàng nañ ak xam-xam waaye yemut foofu mu ne man sama xemmemteef ci daara mu ngi yem ci taxawaay ba Madina Munawwara amoon ci xam-xam ak Basra ak Kuufa foofu foofu lay seetlu daara ci taxawaay daal ne nan fasaaleen rek ñii génn ci daara ji bu ñu doxee ab diir daal maa ngi koy àpp ci ñetti téeméeri at bu doxee ak diir li muy sent lu mu yàgg yàgg fekk ñetti téeméeri at kon nee na Tuubaa dina mën a naw leen te ñooñu mu tudd muy Madina ak Basra ak Kuufa ci wàll xam-xam nga gis kon sëñ Mountakha wooteen bi boo ko setantalee dëgg-dëgg danga naan lii du daaree kese waaye lii ab système éducatif seet la boo xam ne ak gis-gis ci wàllu yare bu am ay mandarga yu leer moo ko taaw kon lan lañ mën a xeeñtu ci buñ jàng buñ jàngatee discours boobu wala waxtaan woowu am solo woowu liñ ciy njëkk a seetlu mooy gis-gis bu sori ci nas ay xalaat nas ay palan ak sóoraale ëllëg ndax li muy séentu ci meññeetu daara bi àpp na ko ba ci ñetti téeméer àpp na ko ba ci ñetti téeméer at ah kon loolu ku ne xam na ne gis-gis la bu soree sore leneen luñ mën a xeeñtu ci waxtaan woowu mooy ne gis-gis bi dafa yaatu lool te xóot ba ëmbaale mbooleem tolluwaayu jàng jàng fu waay mën a toll ci njàng waxtaanu sëñ Muntaxa bi ak yéeneen ji dugalaale xeeti njàng yépp a dugg it ndax bu ne li ko tàmbalee ci ñi doora a dal alquran ba ci joppaxtal la bàyyiwul benn tolluwaayu njàng waaye bàyyiwul benn xeetu njàng mu am kon loolu ba tey luñ ci fenn waaye gis-gis bi li ci gën a yéeme nag mooy dafa mel ne dañ koo mooñaale xër lool ci qualité yàkkamtiwul dara ci mbir mi àpp naa ko ba ci ñetti téeméer waaye lan bëgg moom mooy qualité na am rek ci njàng daal koy mooñaale lu ñu mën a tuddee compétitivité maanaam xaw a jongante ndax jongante dafa baax fastabiqul xayraat jongante ña nga xam ne jàpp nga ne ñoo la raw ci waa mu xool Madina Munawara xool Basra xool Kuufa xam seen taxawaay ca taarix lislaam ba tey jii mu ne ñee laa teg ko feeg ñett téeméer ak allah Tuubaa dina mën a naw la teg lu mu yàgg yàgg na la wax lu mu yàgg yàgg fekk ñetti Tuubaa dina mën a nawlanteeg moom kon loolu yaakaar nañ ne gis-gis la bu xóot boo xam ne eh, bu ñu xoolee jubluwaayu daara bi dinañ xam ne sóoraale nañ ko ci bu baax a baax kon naal bi yan jubluwaay la am dañ cey tudd yàq rek ndax mënuñoo tudd yëpp ba ci jiitu mooy sottal mébéti Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhu ci dëkkam bu sell bi di Tuubaa mébétam yooyu nga xam ne mi ngi ko waxoon ci xasidaat bii di Matlabul Fawzi doon wax naan di ñaan borom na waj'alhu da'ban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi wa maskana al irshaadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi di ñaan suñu borom naan ko yàlla na ko def muy dëkk boo xam ne dëkkub jàng xam doon di barab boo xam barabu xalaat barabu seetantal lay doon di barab bu ñuy gindee nit ñi di leen fa jàngale di leen fa jubbanti di leen fa yee kon loolu dàkk bëgg-bëgg boobu bokk na ci li tax euh, naal bi jub bokk na ci jubluwaayu naal bi it tàggat ndaw ñi ci anam bu matal ba ki fiy dugg di jàng xam dinañ ko tàggat ci anam boo xam ne dina matale ba làmboo li ruuxam soxla xelam soxla ko yaramam soxla ko xolam soxla ko ci li mu taataane ci alquran ak sunna ak njàngale mag bi ak njàng euh, yoonu Cheikh Ahmadul Xadim mi mu xàlloon ci wàll yare te tënkoon ko ci ñett muy al ilmu naafiq muy xam-xam bu am njëriñ wala amalu saalih jëf ju tegg bi ñu gërëm kon loolu ba tey bokk na ci li ñuy dabu ci jàng bi li ciy tegu it mooy ah, daara yi wala naat bi am na yéene dugal loxoom ci lépp luy suuxat yokkute ci yoon bi ci dëkk bi ci Sénégal ci Afrique ci àdduna ndax daara ji kat liñ fiy jàngale lépp xam-xam bu am njariñ te xam-xam bu am njariñ moom ñëpp a ko soxla réew mi soxla na ko Afrique soxla na ko àddina bi soxla na ko te ku ne xam ne ne fa seen muntaxaa dàkk naat bi yaakaar naa ne xam-xam am njëriñ rek mooy li nga xam ne moo mën a boole ñëpp ci euh, wàllu bi comme ni mu ko ni mu sëñ bi doon wax ci am na waxee mu ay dawil uqul ilmul muqarrab liman lahu usul kal aqli wal fiqhi wa kal tasawufi wa kulli ilmin bi manaafi'i kon xam-xam bu am njëriñ mel na ne ba tey bokk na ci tasaare tasaare ko ndax xam-xam bu am njëriñ bàyyiwul man-man bàyyiwul xam-xam bàyyiwul gëm-gëm bàyyiwul lenn lu am njariñ ci dund gi moo tax loolu bokk na ci li ñuy tàgg ci projet bi ak ci naal bi leneen li ci tegu mooy xaaj yi nga xam ne mooy pàcc yi nga xam ne moo nekk ci biir projet projet bi lan lan moo nekk ci biir naal bi lan ak lan nekk ci biir bu ñu bëggee xam naal bi li nekk ci biir misaal mi koy mën a leeral dëgg-dëgg di mooy mu jàmma Cheikh Ahmed al Khadim di tarbiit bu takk wi te mooy complexe bi te daara ji barab bee misaal moom moo ko mën a leeral complexe bi ak lépp lu aju ci complex bi waaye nag li ñu war a bàyyi xel mooy ne naal bi daa tàmbalee ci mu jàmmaa bi com ci complexe bi daara waaye ay bànqaasam incha allah mooy gën a yaatu daara ndax ni ñu ko wax sànq ak nizaam tarbawi ab système éducatif la kon mën na wax ne naal bi mooy daara ji sëñ bi di tabax ne ak bépp jàngukaay boo xam ne dees na fa mën a euh, appliquer programme ba ñuy jàngale ci mu bi jëmi mu jamaa bi nag yaakaar naa ne waxtaan nañ ci ay yoon yoon ci la nekk ci biir ndax weesu daara ak majaalis bi ñuy jànge xam-xam ak université boo xam ne daa bootaale ay kulliyaat ay faculté bootaale ay institut yu nekk ci biir waaye ci wetu mu jamaa bi it sakkoon nañ mbooloo moo xam ne it ñoo doon xalaat ci ay programme yoo xam ne moom lañu jàngale ci école yi nekk ci dëkk bi ak ci yoon école yi jàngale xam-xam ci yoon ñu seet seeni programme ah, méngale ko ak jàggale yoon bi li yi jamono ci ay mbir ñu méngale ci wàllu fiq lépp loo xamante ne si mënees na koo méngale ak fiqul malik yi ñu def ci wàllu aqida ñu méngale programme al aqida al ashariya ci wàllu tasawuf ñu dooleel ko dugalaat ko ci biir programme waaye nag euh, école yi ak seeni programme la nga xam ne moo ci wàllu état loola dañ koo bàyyi noonu kon lii yokkute lay doon ci programme bi waaye teg sax euh, programme état bi ak nam tëddee woon ci biir école Euh, école yi di jàngale xam-xam kon ni ngeen ko seetloo rek euh, naal bi mbir mu yaatoo yaatu la moo xam ne laaj na ñu saytu ko ci anam gu wér ak ci alal yu bari yoo xam ne mel na ne jot na sëkk nag nu xalaat ci seet ci yan yoon lañ mën a jaar ba dajaleel ko alal ci ca wax ndax nag naal bi ngeen ni ngeen ko seetloo naalu bu ñuy tudd ay ñetti téeméeri at war nañoo seet nag jumtuwaay yu tolloo diggante boobu ni ngeen ko xamee nag bu ñu waree waxtaan ci nan yan yoon lañ mën a jaar ba sottal naaj bi ci dajaleel ko alal ji ci war a dem ni ngeen ko xamee mbirum njàng lim laaj ci alal alal ju koy sottal alal ju koy doxal jafe-jafe la boo xam ne mën nañ ne tënn sax état nguur yi li ñuy am am doole bari bari ay pexe financement de l'éducation daf leen a ci tëccaat kon waxuma la nag kuréel yi nga xam ne dañuy dund ci ron état yooyu lu mel ne kuréelu diine yi comme ak tariqa murid yi moo tax naal bu toll ne daare Cheikh Ahmadul Xadim ji soxla na ñu fëggal ko ay bunt yu bari xalal ko ay yoon yu wuute yuy tax li ciy war a dem ci alal di yemb di daje jamono gi ndax dafa weesu rek ab naal naal boo xam ne dañ koo tënk ci jamono mu am fu mu waaye naal bi daara ji ab système éducatif la ab système éducatif lay jëmmal bu yemul fenn moom dundu ngay ànd kon nag war nañoo seet ay jumtuwaay yoo xam ne day méngoo tolluwaayu yooyu nag man ci sama xalaat jàpp naa ne mënut a génn ñetti mbir am na jumtuwaay yoo xam ne dañ koy ballalu ci sharia islami ndax lislaam am na ay jumtuwaay yu mu tegal ci loxoy jullit bi ngir di ngir di ngir ñu mën sukkandiku mën a sottal seeni naal ak seeni projet daal mën a dimbalante dafa xeex ak ñàkk ak dool ci seen biir loolu mooy ba ci njëkk beneen bi mooy am na yoon yoo xam ne nag day sukkandiku ci jaar-jaari yoon ak expérience bi yoonu murid am ci dem ak boppam sottal ay naalam te du sukkandiku kenn loolu it ak ak anam li ci mujj nag mooy euh, jamono fi mu toll ci wàllu istismaar ay jumtuwaay yu bees yoo xam ne jamono génnee na ci wàllu euh, investissement war nañoo jàngataat xool ba xam lan lañ ca mën a euh, jariñoo ci naal bi kon ñett yooyu ci lañ nar a tënkee yoon yi nga xam ne ci lañ mën a sukkandiku ba financer projet bi bu dee jumtuwaay yi nga xam ne lislaam moo ko rëdd bàyyi ko fi mën nañ cee tënk ñett rek mën nañ cee tënk azaka tënk ci waqf tënk ci sadaqatu tatawu mooy defal yàlla rek defal yàlla ci saal ñett yooyu mën nañ ko cee gis bu dee azaka sant yàlla jamono ji ñu wax ci lu azaka mën a sottal ci daal fekk na Tuubaa ñoom ci ndigalu Seex Muhammadul Muntaxa samp nañ kër goo xam ne dañu tudd kër azaka yi kon jàpp naa ne liñ fiy wax du tàbbi ci nopp yi ku tax euh, doonte xam nañ liggéeyu azaka ca cosaan mooy xeex ñàkk xeex ñàkk azaka ci cosaan yàlla bàyyiwul kenn mu koy séddale boppam boppam moo ko séddaleel boppam wax ci bunt yi muy dugg innama alsadaqatu lilfuqarai walmasakini walamilina alayha walmuallafati qulubuhum wa fi riqabi walgaarimin wa fi sabilillahi wabni sabil kon juróom-ñett yooyu la juróom-ñett bunt yooyu ci la asaka jëm ah xam nañ ne kon asaka li ko tax a ci cosaan mooy xeex ñàkk waaye bu asaka yi dajaloo ba sakkan lool na mënees na caa jomp na dugal ci lu mel ne naaj bii di daara bu cay dugg nag fan la ciy dugg ci juróom-ñetti bunt yooyu suñu borom wax euh, bunt bi ñuy wax fii sabilillah ci yoonu yàlla ñiy tafsir alquran ak ñu bari ci fuqaha yi daanaka xaw nañoo maase ci ne liñ ci jublu mooy ñu dimbali ci koo xam ne day xeex day jihaad ci yoonu yàlla loolu daanaka xaw nañ ci maase ci ne loolu lay jublu waaye a cheikh yusuf al qardawi xafisahullah ci téere bi ñuy wax fiqhu zaka wax na ne nañ moytoo xatal maanaam jihaad jàpp ne jihaad mooy yor sangaanaay rek di jàmmaarloo yéefar buy tooñ ak gàllankoor lislaam loolu genn a la ci jihaad waaye jihaad mën naa nekk ci dundal xam-xam loolu cheikh yusuf al qardawi wax loolu nag yaakaar naa ne dina neexal wax ci barab bi ndax borom barab bii li mu wax mooy inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhayminu sharid kon jihaadam ci xam-xam ak ci ragal yàlla ci la ko tënk kon yaakaar naa waa kër azaka yi buñ demee ba ba sakkan du ñàkk moo suñu mën a comp ci azaka yi dugal ci daara bi te dugal ko ci buntu fii sabilillah leneen li ciy mooy alwaqf mooy ponk bi gën a rëy bi nga xam ne mënees na cee sukkandiku moom ngir gunge naar bi balim soxla ci alal jamono ju ne mu koy mën a am ndax waqfu alhamdulilah sëñ Samb sa jaar na fii ba waxtaan ci li ci mat a leeral lépp leeral waaye man la ma ca gën a jàpp mooy euh, waqfu alal la joo xam ne dañ koy moomale yàlla alal ja des fa di liggéey alal waaye la cay génn ci alal ñu delloo ko ci yoon yàlla loolu yi nag jàpp nañ ne mooy bunt bi gën a méngoo euh, pour financer projet mu mel ne kon alal jooju mën naa nekk ci anam yu baree bare waqf dina nekk ci ay ay kër ay kër nit ku tabax këram di ko luye la cay meññe mu def ko ci yoonu yàlla dana am ci ay immeuble ay taax yoo xam ne loolu dong lañ cay lañ cay lañ cay xëy mën naa am ci yeneen domaine ba ci transport ak ay tool ak ay ferme bari na daal ay domaine yoo xam ne wax waqfu man na faa liggéey te la cay meññee ci njariñ ñu dugalaat ko ci daara man nag ma jàpp ne waqfu ngir mu mën a joxe njariñ li mu war a joxe ci tolluwaayu liggéey bi ni ñu defal azaka jàpp naa ne dina jaar ñu defal ko ni ñu amee baytu zaka na am jiha boo xam ne it nag mooy saytu awqaaf yi awqaaf yi awqaaf yépp nag waaye ci biir aw yi kenn ku nekk nag booy wax danga naan sama alal ji dama ko delloo sama borom lu ca génne nañ ma ko dugalal ci barab sànni boobaa ñi nga xam ne seen wax waqfu daa jëm ci daal ñu gën koo saytu ci geneen am waaye jàpp naa ne mënut a ñàkk jiha euh, ak kuréel boo xam ne mooy saytu awqaat comme niñ ko defee def zakat bu boobaa nag la cay rek mooy soññeenteeg boroom alal yi ak taalib yépp rek gën leen a xërtal ci ñu def waqf ndax euh, jàpp naa ne waqf moom euh, def na ay résultat ba noppi am na ci senegal bi rek yaakaar naa Cheikh Mouhamed Moutabar euh, ci njëkk a yëkkati siyaar waqf doon ci xeetu ponk l'islam bi defoon ci am solo waaye am na ñeneen ñu ko ci roy boo demee daal di ko am nañ ay awqaaf ci Dakar boo demee waa Kër Abbas Sall am nañ ko waaye ci aalam bari na ci ay kuréel wala ay yoo xam ne ca cosaan waqf rek. ci la doon sukkandiku ba keroog waqf di tuxu ci loxo yi nit ñi dem ci loxo yi état yi ñu di ko tuddee wasaaratul awqaaf kon jàpp nañ ne euh, waqf moom naa mën a liggéey lu baree baree baree ci daal bi waaye ñu organiser ko gën koo nose gën mën a waxtaan ak borom alal yi gën leen ci xirt ba li ñuy taj ci génne alal euh, ko dajee ci taxawat ay awqaaf dina noppale ci ñoom noppale ci daal bi kon loolu mooy ñaareelu tomb beneen bi nag mooy sadaqatu tatawu def defal yàlla defal yàlla sama borom da cee soññee bu baax a baax ci def sa alal ci yoon yàlla alladina yunfiquna amwalahum billayli wannahaari sirran wa alaniya fa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun loolu kon ay aay yu bari yoo xam ne day soññee ci loolu waaye bunt bii day bunt boo xam ne dafa am solo lool ndax nit dina ci def loo xam ne sax du ko def ci farata nit dina joxe azaka azaka ya gën a néew lim defal yàlla ci yeneen bunt kon bunt la boo xam ne mat naa bàyyi xel lool rawatina borom barke yi borom alal yi alhamdulilah ba ndax bunt la boo xam ne mel na ne yoonu murit moom daf koo jariñoo bu baax baax ba génn ci sax yeneen yoo xam ne ñeneen ñu xam ko ndax ci yoon murit ci bunt boobu ci la xitma di génn ci la hadiya di génn ci la barkeelu di génn ci la jaayante di génn ndax ci loolu lañ leen ñuy def lu ëpp la ñuy def ci faratay ndax faratay ginnaaw dañ ko limité lañ wax rek ngay def bunt bii nag day bunt boo xam ne dañ koo xàll ubbi ko euh, euh, kon yoon bi am na lu mu jàngee bu baax a baax ci baabu sadaqaati tatawwu exploité ko jariñoo ko ba mu am jariñ la ca war loolu nag moom moom lañ bëgg a tuuti xool ba xam ginnaaw jumtuwaay yi nga xam ne lislaam moo ko tegal jullit mooy jumtuwaay yi nga xam ne ci expérience yoon wi ci lañ ko natt ba nga xam ne euh, amal na yoonu jen kon ñu xam ne rek ne bokk na ci fiñ ñu mën a sukkandiku ba financer projet bi ñu dellu ci jaar-jaari yoon mu rek ci demal boppam ci financer boppam ay projet boppam te du sukkandiku ci kenn loolu ay mbir yu bare bare hadiya ma nga ci sase mi ngi ci sasu mi ngi ci waaye li ñuy tudde xidma wala jaayante mi ngi ci bu ñu xoolee hadiya hadiya alal la rek yoo xam ne ab taalibe moo koy jox ab sëriñam ci coobare day coobare wu jox ab sëriñam alal ngir dàkk ci ngërëmal suñu borom kon addiya kenn nit dina ko joxe am mbooloo dina ko joxe ndax miin nañ lool dugg ci kër sëñ Touba bi bisub gaaw wala bisub digéer fekk fi ay daayira yu bari yoo xam ne fu ne la ñuy di ñëw di jébbale seen i loolu kon euh, ministre am na sax ay dawaay yoo xam ne ñu mel ne xisbi tarqiya euh, ñoom at ba at lañuy ñuy dajale addi yu takkoo takk dajee sëriñ bi jox ko lu mën a xew addi moom ku ne xam ne lim sottal ci yoon kon kilifa xam nañ ñoom addi yi bis bu dajee nan lañ ci compale wala nan lañ koy delloowaat ci euh, njariñu yoon xanaa di fàttali ne sëñ Muntaxa ci waxam jooju eh, am na ci fu leerale sëñ Sidi Muxtaar radiyallaahu anhu jotoon naa ju daara ji ba sëñ Muntaxa nee na man boobu maa ngi ci yëngatu nee na boobu bu may dem di yóbbu addiya damay sàkk addiya jox na sama addiya bopp la ko lii de sama addiya daal di yëkkatiwaat nag leneen nag li ne ko lii de moom sa addiya ji jëm ci daara bi xam ne loolu anam la boo xam ne ak bindu la bu rëy rëy ci ñi nga xam ne dañuy indi addiyee ci ci ci xalaat yëkkati loo xam ne daf ne lii moom sama addiyee yi maa la ko lii nag addiyee la ci jëm ci daara waaye yaakaar naa ne addiyee jàngal wala deesu joxañ ak euh, ak kilifa nan la koy defee ndax yaakaar naa lu fi sant ci addiyee yi rek la sant euh, beneen bi mooy sase sas mën naa am ñu sas par nit wala ñu sas ay mbooloo bu ngeen seetloo bu sëñ bi joxee digal ñaari feeñ na ci projet bi sëriñ bi ñu xase xam ne lii bëgg-bëggal kër yi seex sépp ak sëriñ sépp kenn ku nekk dajale nga sa njaboot sas leen buñ toog ab diir mukk lu ne dañoo gis ak kër bu dem ne dañoo jébbale ji seen hadiya ci université Cheikh Ahmadul Khadim loolu miin nañ ko loolu léegi waaye xaddi yooyu bala mu daataan dajaloo dañoo sas dañoo sas taalibe yi ñu dajala la dajaloo ci seen loxo ñu andi ko jox ko sëñ bi kon loolu ba tey aw yoon la aw yoon la sas aw yoon la euh, moo xam dañ koy def par kenn wala pari mool beneen bi mooy sasu sasu moom nit ki mooy coobareel bopp ne man maay jël nangam di ko jox ci daal la cay cosaan nag mooy tooli àllarba yi bu ñu fàttali ko toolu àllarba dëkk yi ñoo ko daan ñoo daan dajale seen seen suuf wutu jiwu ruuj tool bay ko def ci la ci war lépp ba góor ko wala ñu déq ko dajale ko andi ko jox ko sëriñ bi loola kon aw sas sasu la woon ñoo ko sas seen lu mat a bàyyi xel la nag ci naal bi ndax naal bi moom dina leer ne kenn amatul ngànt bàccee def incha allah am na kàddu sëñ Muntaxa yu dikk ci kat dina leer ñëpp ne kenn amatul ngànt ba def kon ñi nga xam ne seen man-man mi ngi yem ci bay dajaloo dajale seen alal bay tool alal la andi ko ci daara loolu ba tey bu waaye bari na ci sase sasu yoo xam ne nag lii ci Tuubaa ca kanam wane ci misaal buñ ko jàngatee dëgg dëgg dëgg dëgg dinañ ci mën génne ay bunt yu bees yoo xam ne dina jariñ daal mu am ay misaal nag yu yéeme yoo xam ne bi sëñ Mountakha wootee naal bi ak léegi da cee feeñ nettali nañ ci benn jataay boo xam ne sëriñ bi daf ko seqoon na ki boroomi alal ay taay yoo xam ne dañ ko seet soon bi mu leen waxee naal bi ñoom ñi ngi tolloon ci juróom benn fukki nit waaye ci jataay bi bi mu daataan tas kenn ku nekk sasu na sasu ku ne man maa sasoo nangam million maa sasoo nangam million ca jataay ba six milliards daje ci benn jataay loolu yaakaar naa ne lu yéeme loo xam ne ñooñu la sëriñ bi tuddee taliatul muridi seen sas seen seen six milliards yooyu euh, feeñ ndax dañ dañoo dem sasuwaat ca daara ya ne ñoom ñooy tabax ay bâtiment nañ leen jox ay bâtiment ñu tabaxal ko seen bopp bëgg dégg rek seen naa leen ñuy jëppale seeni caabi ci bâtiment yooyu te bañ waxee lañ ca def six milliards teg na tuuti ay millions kon loolu ak anam la koo xam ne waras na ko bàyyi xel bu baax a baax ci ci ci liggéey bi waa Tuubaa ci kanam ñi ma tudd sànq it ñoom itam gis nga dañoo sasu ca ca bis ba keroog ba ñuy teg xeer sasu nañ ne danañ joxe nangam waaye bañ fa jógee ñu ne ñoom itam dañoo sasu ngir tabax benn bâtiment ci biir université kon jàpp naa ne sasu moom buntu la boo xam ne li ci borom barke yooyu def dajale 6 milliards ci juróom-benn fukki nit rek loolu buntu la boo xam ne ñooñu ku leen organiser dama doon wax ci aw yi bu ñu ko organiser woon xërtal leen ci ñu taxaw ay waqf ñoom ñooñi kenn ku nekk nan nga ko mëne wala ñu ci ay mbooloo ñu dajaloo def wax waqf jàpp naa ne loolu mën naa mu daara bi bu baax a baax baax kon bunt la bu am solo mu am beneen jumtuwaay boo xam ne ci yoon wi lañ koy xeeñtoo bu baax a baax mooy li ñuy tuddee xidma xidma nga dégg ku naan liggéeyal sëriñ Touba kenn ku nekk yaa ngi liggéeyal sëriñ Touba ci wenn waar woo xam ne bu ko ñoral te nga xool sa bopp xam ne foofu nga gën a mën loolu mën naa bañ a nekk alal juy tege nga xam ne koy yëkkati di ko jox waaye wecc na alal wala mu gën ko sax ci xayma ci alal boo moytuwul sax dana ëpp li waram alal yi joxe nit dina joxe ciw ñaqam loo xam ne buñ ko ko doon fay fay ko mbooloo ma ko taxee xaalis bu baree baree bare loolu dañ ko war a xayma ndax nag projet bi moom soxla na doole nit dina yor ay pexe defal ci yoon loo xam ne buñ ko doon xayma ci xaalis alal ju baree bare loolu it ba tey lu mat a suuxatal la ndax yoon wi soxla nañ ay pexe naat bi soxla na ay pexe nit dina liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci ay xalaatam te du ci laaj dara xalaat yoo xam ne buñ ko doon xayma ci xaalis kenn du xam lu muy te loolu feeñ na yoon wi ak naal bi soxla na ay xalaat yoo xam ne euh, da ciy dem waaye nit dina liggéeyal sëriñ bi ci xam-xam ci lu anam boo xam ne buñ ko ko doon fay ci geneen am bu bëree bëree bëree te loolu dafa feeñ lool ci projet bi tàmbale nekk ay kàngam yoo xam ne ci seen waar wa ñuy maanaam àgg nañ ca njobaxtaan la ci xarit waaye saa yu ñu leen soxlaa ci liggéey bi ñooy paasal seen bopp dawal seen oto yu bopp ñëw def liggéey ba bu doon ñaari fan ñetti fan ñoo koy defal seen bopp wàññeeku yóbbuwaat seen bopp te koo juumoon ba ko cee jéem a jox sax lu mu paase boo moytul yow ma ko doon jéem a jox yaay bu ci am jafe-jafe loolu man jaar naa ci ay nit ñoo xam ne lu ñu leen doon bind loolu ci ay programme ñu def ko anam gu yéeme ñu woo leen ne leen kaay leen ñu càmbar ko ñun ñëpp ñu dikk bàyyi seen soxla def fi ñaari fan sëriñ bi yëkkati woon alal ne nañ leen ko jox ñu barkeeloo waaye ñun ña ko doon jox ñun ñoo mujj am jafe-jafe mujj ñun nafaraat suñu bopp sax ndax koo ko ci jox boo moytul yaraa nga nga cee mujj jëlee ndax da koy xaw a seexlu sax loolu nag lu mat a bàyyi xel la du xaalis bu teg waaye loolu wecc na xaalis kon loolu it ba tey e, yoon wi e, jaar na ci e, te def na ci ay résultats yu am solo ndax résultats yi yoon wi ci waar woowu yii ma tudd nii mooy addiye yeeg sasu yeeg sase yeeg xidma bi ak barkeelu yeeg jaayante yi taxawal nañ ci ay daara daara ji sëriñ bi samp nu tuuti bu dem ci géej bàyyee ko maam Thierno daara jooju ci yii ma wax ca la doon fonctionné sëriñ Bachir nekk li na ko wax na ne Cheikh Ibra Fall radiyallahu anhu bi sëriñ bii dem daf koo dénk na ko na ngay jàppale maam Thierno ci ab dugg di jàppale njaboot bi sëriñ Bachir nekk na ci ay ay ay ay ay bari ci loolu di wane ne du ma fàttaliku mukk du dañ di fàttaliku sëf yam daan andi ñu ñu ab dund bu daan andi di maam Diallo sëñ ma Ndumbe radiyallahu anhu moom féete woon ak maam Diallo féete woon ci liggéey di tàggat ndaw ñi di ànd ak ñoom di liggéey waaye la jóge ca liggéey bi lépp ñu koy def ci daara sëriñ kon loolu yoonu tabaxal na ci wala jaar na ci ay jaar-jaar yoo xam ne may na ko mu samp ay daara yaakaar naa ne bu ñu waxee daara yooyu tudd daara yi sëñ Cheikh Gaynde Fatma yi jàpp naa ne daayira yi amoon ci euh, taxawaay bu rëy euh, sëñ Mourtada daara bi ku ne xam ne ne moom tamit ci wàll ci la doon fonctionné bu baax baax euh, fondation Maam Jaara bi nee muy def ca Porokhane gis ngeen ko kon yoon wi moom yi ñu wax jig na jig na ko jig na ko bu baax baax ndax ci la taxawale ay daara yu am solo ci histoire yoon wi waaye saytu ko ci ba fi ñuy wax ak am na daara xam ne ci loolu lañuy doxee waaye yoon jaar na ci ba tabax ay jumtuwaay mel ne infrastructure bu ngeen fàttali ko raay barab bii ni ko bëggee taxaw bokkoon na ci li gënoon a gàllankoor tabax bi mooy lan mooy andi matériel bu buur bi nga xam ne moo ko war a tabax sëñ Mouhamadou Moustapha ba mu ci waxtaanee euh, tubaab bi ñu xamal ko ne ko daal bu ngeen mënee warlu daal ne yéenay kes raay jële ko jaaree ba Touba danañ loolu dina mën a nekk waaye main d'œuvre bi li ma doon wax ci nit ak ku ñaqam main d'œuvre bi yéen yéen a ñooy gas lépp ñoo koy gas nga xam ne ay li bu rëy ñoo bokkoon ci. Euh, ña liggéey di sottal euh, raay kon yoon wi sukkandiku na ci jumtuwaay boppam ngir tabax ay daara taxawu ay daara tabax ay yoon lu mel ne raay bi ba suñ borom sottal ci seen loxo yoon wi sukkandiku na ci loolu ba tabax lu mel na hôpital Matlaboul Fawzayni bii misaal la Sëriñ Saaliw radiyallaahu anhu ci atam yu mujj déclaration bi yéen koy fàttaliku la mu waxoon ne li ngeen fi indi ci at yi ak liggéey xel ko ci laa dajale lu ma fukki milliards ne leen dinaa leen ko defal ci dëkk lu waay indi nag jox ma ko dinaa ko boole lii ma yor def ko ci dëkk kon jàpp naa ne yooyu moom jumtuwaayu boppam yii jox na ko indépendance jox ko autonomie ba jig na ko daal ci la sottal ay mbir yu bare bare ba ci Tuubaa ci kanam ñeen a gis liggéey yu am solo yi muy def ci eh, dëkk bi di ko def ci yoon bi te lépp mu ngi ko ci jumtuwaay yee nga xam ne moom la yoon bi xaalal bopp kon daara ji it jàpp nañ ne li ko tàmbali nii it ci loola dong la kon nag ginnaaw tabax bi xaw naa am jàpp nañ ne la koy doxal moom tim ci foofu dong la mën a jaar waaye jumtuwaay yooyu yoon wi jaar na ci ba tabax ay jumaa ci jamono ju méttee métti na ndax bu ngeen seetloo jumaay jaare biñ koy tabax ci jamonoy guerre mondiale première guerre mondiale 14 18 14 18 ci lañ ndax ñi ngi teg xeer wi ci euh, avril 1918 te guerre mondiale bi mi ngi jeex ci novembre de 1918 kon ci jamonoy crise mondiale ci lañ tabax jumaay jaare waaye ci jumtuwaay yi ñu wax bañ ca jógee sëriñ bi jumaa ji ñu toog tey ñoroon ko lool moom tim la woote waat sas wala mu digal sëriñ seeg seex seeg ñépp rek ak taalibe kenn ku nekk mu digal la nga def ci li nga man ci ci ci naal muy jumaa ji sase woon ñaar fukki ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett yaakaar naa ne loola bañ ko dajalee xaalis bu baree bari la xaalis baree bari la ci jamono 1926 ba xaalis ba dajaloo kilifa yi fa teew sëriñ bi di wax ak ñoom di leen sant waaye di leen dégg waaye li mat a seetlu it ci jumaa ji mel na ne jamono yi ñu ko doon tabax nekkutoon jamono yi gën a neex ndax dafa ñëw ci ginnaaw ab crise mondiale crise financière crise économique bu 1929 ci ginnaawam rek waaye daanaka feeñ dem na ba guerre mondiale deuxième guerre mondiale it gàllankoor liggéey bi kon waaye teewul loolu lépp teewul la war a sotti mi ngi doon sotti la war a sotti ci wàllu alal mi ngi doon sotti waaye dama doon wax ne sëriñ bi bi mu santee mbooloo bi ñu dajale barkeel yooyu ba mu dajaloo mu dajale leen di leen sant da caa boole nag wax leen ab yóbbal boo xam ne jàpp naa ne soxla nañ ko lool ci projet bi ndax ba mu leen santee ba nag daf leen lépp lu ak seeti nag ci lu muy soxla soo xam ne ala la koy def la ngeen am lépp na ngeen ko ca la ngeen am lépp na ngeen ko ca def la ngeen ci amul nag na ngeen jaar ci yoonu njub te waaxuuti ko jaar ci yoonu njub te waaxuuti ko te fépp foo xam ne fa la seen kàttan ak seen man-man yam na ngeen taxaw te xaar sa yajaalu llahu baada usrin yusra daal ne leen te rikk nag na ngeen moytandikoo jël ndimbal koo xam ne bu fajee seen soxla yi la ngeen koy jënde du ko jar ndax benn muy seen ngor bu ngeen jaay wala seen diine lii la leen sëriñ bi wax keroog jàpp naa ne nag dénkaane sëriñ bu am solo bii sëriñ Muhammadul Muntaqa bàyyi na ko xel lool ci keroog bi muy woote màggal gee daaw jéeg màggal gi dajeeg mille quatre cent quarante deux dajeeg deux mille vingt et bi muy woote woote def na joxoñ boo xam ne day mel na sax nit ñi bàyyi wuñ ko xel wax am solo daanaka lépp ci daara ji la ko def wala xaaj bu rëy rëy daal ci waxtaan ci luy financé daara ji ci la ko def bu bokk ci la wax mu ne waxuma la matériel bi bu teew ak milliards yi nu ci def ne bu sotti woon colleet itam milliards yu toll noonu wala yu ko ëpp mooy tax bu dox waaw kon sëñ bi jiitu nañu bu sotti woon cooleet itam milliards yu toll noonu wala yu ko ëpp fuuf mooy tax daara ji dox daal ne na kon nan gën a rafetal sunu yéen gën a yokk sunu pësteel gën a yokk sunu yitte gën a xam ne it liggéey la boo xam ne dañ koy war a bàyyi xel waxtu bi loolu ba tey ab woote la ab soññe la daa di wane weneen yoon ne moo xam par weer la wala par at wala par ay bis lu waay mën na ko ci def lu waay mën na ko ci def sasuma kenn waaye lu waay mën doy na sasuma kenn waaye lu waay mën doy na daal ne lii ma wax nag sama kanam ak sama ginnaaw laa ci jublu ndax liggéeyub Sëriñ Tuubaa rekk la te loolu day wéy di wéy du ñu ko yemale fenn du ñu ko yemale fenn lii sëñ Muntaxa wax na moom mën naa am ñu bari bàyyiwut ci xel ba mu koy wax waaye lii nuy wax tey kon jiitu nañ ci bu yàgg yàgg xalaatal nañu ci bu yàgg yàgg waaye man li ma yéem ci sëñ Muntaxa mooy li muy def xam gi mu ko xam maanaam projet bi ni mu ko maîtriser dafa yéem ndax ba muy wax ci wàllu njàng mi dafa wax ne àpp nañ ko ci feeg ñetti téeméer at ñetti téeméeri at ci wàllu njàng ñetti téeméeri at waaye bi muy wax ci jumtuwaay yi financé njàng lim lim daaneel daf ne lii may wax sama kanam ak sama ginaaw laa ci jub ndax liggéeyu Sëriñ Tuubaa rekk la te loolu day wey di wéy bu nu ko yamale fenn kon ñaari wax yi mi ngoon a loolu wax dëgg kon kii li muy wax li muy yor xam na ko li muy woote xam na ko bu baax a baax waaye loolu yi am na lu war a jural taalibe yépp mooy bis ni ko keroog ba mu defee déclaration bii kenn ku nekk war naa xam jaadootul ci yow am at wéy te sa dërëm demul ci demul demul ci daara ndax li mu wax daf ne moo xam par weer moo xam par at la moo xam par ay bis la kon loolu mel na ne kon kenn ku nekk war ngaa xam ne farata la ci yow li ko dalee li sëñ bi wootee woote moomu at bu ne sa dara dem ci daal nam cay demee nag ndax par weer ndax par ay bis la ndax par at la loola moom nos ak ak nos rek mën nañ ko organiser jàpp naa ne Touba ci kan Touba dañ di ko wax wane na yoon moom nose na par weer weer wu ne lu woyof loo xam ne ñu ngi koy def gis ci résultat mën na saa jàng jàng bu baax baax lu lu lu yokku projet bi kon loolu mooy li aju ci jumtuwaay yi nga xam ne yoon wi moo ko juddulu taxaw ci ba am ci ay résultat waaye ah, mel na ne war nañoo xalaat it ci lu ñuy lu ñuy jariñoo li jamono andi ci ay jumtuwaay ak ay pexe ci wàllu investissement dëppale ko nag ak naalub sëñ Muntaxaa bi lu mën a nekk euh, yaxantu wut alal mën naa am taxut ñuy samp ak université loolu tox waaye ak université ak daara ju mag akum njàng daa ay jumtuwaay yu ko financé ci buntu boobu nag université bi ni ma ko waxe sànq am na ay jàngukaay yu bari yu nekk ci am na ci jàngukaay yoo xam ne lañ fay jàng mooy am mbay mbay lañ fay jàng am jàngukaay yoo xam ne lañ fay jàng mooy ak càmm ak càmm ma yaakaar ne sañees naa méngale diggante la ñuy jàngale ci biir daara ji ak bootal daara ji ay projet li ñuy tuddee ay activités génératrices de revenu AGR warees na ko man activité yoo xam ne day méngoog la ñuy jàngale ci daara waaye di activité yoo xam ne naa andil daara ja njariñ lu rëy rëy buñ jëloon jàngukaay bi nga xam ne dañ fay jàngale mbay ndax mi ngi tudd aziraa wal intaaj ak nabaati agronomie ak production végétale mbay daara jooju bu fekkoon ne Euh, kilifa yi amoon nañ ay suuf yu bees ay tool maa ngi xalaat fële ca wetu gaaw ma gis fa fay am ay tool yu rëy ay kilifa di fa bay fu mel noonu ak feneen ak feneen buñ fa mënoon a am ay tool yu bari yoo xam ne day topp université bi day topp daal ñu fay bay mbayum noor ak mbayum nawet ña fay jàngi buñ jàngee yi bu ñu waree pratiquer dem ca tool ya waaye ñuy bàyyi ci tool ya loo xam ne la cay meññ dañ ko ndax yomb na dëkk bi moom dëkkub barke la loo fi yëngatu barke am ci ndax xew-xew yi dafay bari mbooloo yi di fi ñëw di fi daje mbooloo yi fi ñëw dañuy jëfandikoo lépp yi dañ koy jëggaani rek kon nag warees naa mën a wut ay tool yoo xam ne loolu ñuy jëfandikoo ci dëkk bi dinañ ko mën a bayee foofu bay moo xam ah dana amal dëkk bi jariñ dina amal daara ji jariñ te ñi fay jàng bayit bu ñu bëggee gis ay misaal danañ fa dem gis ay misaal yu leer kon ci wàllu bay warees na mën a xalaat ci wàll woowu damaa tudd suufas daam rek waaye suuf yi ko mën bari mbay yi ñu mën a bay bari na waaye li ma wax nag mooy dëkk bi dëkku barke ku fi bay moom di fi andi jàpp naa ne la ngay bay dana jar te loolee bu jaree duggaat ci daara ji jar kese la buñ jëloo nit daara ji nga xam ne dañ fay jàngale wàllu càmm wàllu càmm ah mën nañoo wut ay ferme bootal ko daara ji ay ferme yoo xam ne dañ fay yar ak jur di ko tàmbalee ci ginaar bi ci gileem lépp ñu ko fay yar war naa mën a nekk ndax ñii dañ koy jàng incha allah bu taxawee dañ fiy jàng wàllu jàpp comme nag yooyu yëpp lu ñuy jëfandikoo la ci dëkk bi ci xew-xew li ko commencé ci ginaar bi ci gineem lu ñuy jëfandikoo la ci dëkk bi bu fekkoon ne wut nañ ci ay barab yoo xam ah loola lañ fay say la fay juddoo ci njariñ ñu delloo ko ci daara ji yaakaar naa dina jàppale daara ji baax a baax a baax ginnaaw loolu lépp nag ah yaxantu waxoon naa ne taxul ñuy samp ay daara ak université waaye ndax dina aay daara ji wutal boppam ay barab yu muy yaxantoo daara ji ndax dina aay mu wutal boppam ay oto yoo xam ne ci transport lañuy ñuy ndax daara ji dina aay mu jënd ay action ci société yu mag yi la cay juddoo mu dugalaat ko ci biir daara ji jàpp naa ne loolu buntu la yoo xam ne wares na koo mën a bàyyi xel bu baax baax baax leneen li nag mooy ne daara gi daaray Sénégal loxal état lay bujje waaye kenn waru ko cee jiitu kenn waru ko cee jiitu ndax daara ji daaray Sénégal ña fay jàng ay sénégalais mën nañoo ma nekk sax ay muréti kese mën naa jéggi sax Sénégal ay jàmbur di fi jàng si kon nguur gi moom jàpp nañ ne kenn waru ko jiitu ci waaw war na cee def war na cee bay aw laajte bu baax a baax baax baax gunge ko ànd ak moom bu baax wax ñu muy financement boo xam ne da nga koy yëkkati tey téy sa loxo waaye war loolu daara ji wér-wér loo xam ne dina mën a tax daara ji dox ci wàll loolu it ba tey kon ni ñu ko waxee ci état bi noonu lañ koy wax waxee tàllal loxo say mbokk jullit jàppalanteeg ñoom lu ñu la mën a dimbalee ñu dimbalee la ko ndax euh, ci li weesu rek euh, Mauritanie ak Maroc kenn ku nekk am nga ay taxawaay yoo xam ne fësal ko ko am yéene jàppalanteeg daara ji ci waa ci mbir yoo xam ne bu nekkul alal di ñu yëkkati di joxe lu ñu mën a xayma la ci àll waaye loola ginnaaw kilifa yi ñu ngi koy saytu. bu accès dina leer ñëpp incha allah waaye li ma bëgg a wax mooy ni mu waree état bi mu dugal loxoom ci njàng mi noonu la waree àddina bépp ñu jàppalante daara ndax kiñ fiy formé di ko fi tàggate nit la koo xam ne njariñam mën naa jéggi frontière njariñ àddina bépp kon nag àddina bi ku bëgg lu baax ko ne war ngaa mën a dugal sa loxo ci kon loolu rek lañ tënkoon ci waar woowu ñu xam la ne kon fi muy tëjee kàddu yi mooy bàyyiloo waat xel mbokk yi ne naalu sëñ Muntaxa bi naalu daara ji naalu njàng parce que daara ji la ak njàng kuy wax ñetti téeméeri du daal du jenn daara ngay saytu am njàng ak système éducatif day saytu waaye li ma bëgg nu bàyyi ko xel mooy daara jeeg njàng mooy benn projet bi des ci ñetti projet yi nga xam ne sëñ Mbàkke bu su tuddal ko mooy benn projet bi des ci ñetti projet yi nga xam ne sëñ Mbàkke bu su tuddal ko ndax ñett la tuddal benn ba moom ca déwén sa bi mu ñibbisee Touba ca déwén sa la ko njaboot gi def te ba fii nuy wax yow ak li weesu njaboot gi ñu ngi dem Màkka di dem ak dikk kon aj gi moom lam ci bëggoon suñ borom dogalu ko ci bopp waaye dogal na ko ci njaboot lu leen yitteel ji toog di wax na ci loxo yi kilifa yi sëñ Mouhamadou Moustapha def ci liggéey bu am solo li mën ak li mënul ba suñu borom ba mujj suñu borom sëñ Fallou awu ko ci ba keroog bu ngay àggale fii ci 1963 kon benn naa la ci des bi benn naan la dese mooy njàng donc ñun ñëpp dañ ko war a xam buñ ko xasee xam nag ñun ñëpp war a la xasaay góorgóorlu ci lu koy sottal góorgóorlu ci lu koy doxal fi ñu jaar leer na fi ni bunt yi ñu mën a jaar ngir sottal naal bi bunt yu bare bare yoo xam ne yenn ci lislaam lañ ko balluloo lenn li yoon wi moo ko balluloo ca jumtuwaayu lislaam bi tër ko ci njàngale Sëriñ Tuubaa ba mën a sukkandiku ci boppam wéyal ay naalam kon mel na ne li fi des rek mooy nose mbir ndax yooni moom domaine boo tudd mel na ne am na ci ay kàngam yoo xam ne bañaluñ ko dara waaye nose gi rek mooy li nga xam ne moom la ñu ci wàll woowu war nañoo nose mbir yi kon gën a nàmmaat paste fu taalibe yi ak jullit ñi ak Sénégal yi yépp nag ba kenn ku nekk di ci dugal loxo dugal ci loxo mooy di ci dugal loxo koy def di ko defaat daara ji moom di def di defaat la laaj du loo xam ne dangay ngay indi sa addiya rek jàpp ne wàcc la at bu jot weer bu jot ay bis bu jot dañoo war di xeeñ kàddu si mun taqaay ñëpp ci war a ci war a ay jéego ba mu man a sotti ci ni ko borom Tuubaa bëggee woon loolu ñoo koy ñaan mu amee noonu ci loxoy sëñ Muntaxa bi di ko ñaanal suñu borom seral xolam ci liggéey bii ba mu mate ni mu ko bëggee moom sëñ Muntaxa ba yàlla defal ko tawfiq moom te mu wax la waaye juram boo waxoon mooy Seex Muhammadul Faadil naalu sëriñ bii muy ñaareel naal bi mu sottee ci loxo dafa bind bindi abiyatam ñëw ci barab bi tiim ko wax ay abiyaat kama qad kunta ta'mulu ya xadima bihi hunnita fi daari naim fakun fi nicmatin abadan muqima muaafan murtadan cheikh alxadim loolu dañuy ñaan sëñ Muhammad ibn Muntaqa suñ borom defal ko tawfiq mu mu wax ko fii ci barab bi suñ borom kattanal ci mu ànd ko mbokkam yu baax yi ànd ko taalibe yépp suñ borom dalal xelam it ci kàddoom gam waxoon ne bu mu suuf yàlla suñu borom dalal xelam ci loolu ba euh, liggéey bi maanaam matee na a dal xel te wéy di wéy bañ yem fenn rabbana la tuaxisna in nasina aw axdana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Abdou Lahad te it leer na sàmmonte li ak euh, waxtu bi des na sax tuuti ci liñ la muy jaaral bu ama ama am solo boo xamante ni yaakaar naa ni ñëpp ko war a diglu rawatina ñi nga xamante ni am nañ sañ-sañ jël ay dogal ndax jotaay yu mel ni solo si foofu la nekk euh, koo xamante ni dangaa war a jël ay dogal da ngay aajowoo ñu lay xelal xelal yi nag ñi la wër sës ci yow mën nañ la koo defal waaye it mën ngaa jëlee xel mu rafet fu ne ci biir njaboot bi kon jotaay yu mel nii yu ama am solo la day niital ñi nga xamante ni ñoo am sañ sañu jël ay dogal ñu mën a jël dogal yoo xamante ni ñu mucc ayib la kon ni ngeen ko gisee euh, am na tomb yu bari yoo xamante ni euh, laal na ko yenn yi yaatal na ci lool yenn yi dafa gis ne xëy na jàpp na ni ñu bari xam nañ ko ba tax taxawu ci lool waaye pàcc bi mu gën a taxaw daal mooy pàcc naka la saytoo lii ci wàllu koppar mu yaatal ci lool tudd na ci nag euh, bunt boo xamante ne moom lislaam moo ko fi indi ca bunt booba dañ cay fekk ay asaka waqfu ak def lu baax li ñu wax ay tabarruat ak tudd na ci tamit dén bi yoonu murit foofu nag euh, dàggaat na pësse fii bu baax a baax wane ne mboolem lu sotti yoonu murit da ko sottal ci jom ak sukkandiku ci boppam te ñooñu jiitu woon àndoon ak sëriñ bi tàmbali liggéey bi ci ay jamono yu metti waruñoo ëpp jom ñii di dund ci jamono ji ak ñiy ñëw kon jamono ju nekk ak ay jafe-jafe buñ jàpp ne mukk ñooñu amul woon ay jafe-jafe Touba gii ñu nekk amoon na ay jamono dañ daa tere ku fi dugg dañ daa tere ku fi dugg tere nit ñi ki gis ngeen sëñ Moussa Ka li muy nett ni di teen tanoor di tere taalibe yi pour ñu dem Touba ba mag yi taalibe yi ay sëñ Babacar ter gara yu mel noonu di ko tontu naan ko tekki sa ndomb ak tànk moo gën a yomb lii ngay wax ñoo lànk dañuy dem Touba kon amoon na ay jamono xalaat ku ñemewut doo ñëw Touba ndax dañ koo tere kon buñ demee ba Touba mel ni nekk ñaareelu dëkku Sénégal mooy ne kon pas-pasu taalibe yi ñoo ñoo taxaw jamono jooju nag loola moo nekkoon ay jafe-jafeem yeneen yeneen jamono yii ay jafe-jafe boppam kon pësteef yi lañ war a nàmm euh, wax na tamit ci niñ ko war a euh, financer ginnaaw bi mu tuddee euh, expérience yoonu murit ci ay ci ay financer ay naalam jumaa tudd na ci jumaa yi njaareem jumaa ji ci ay jamono yoo xamante ne àddina bi ci boppam dafa nekk ci jafe-jafe koppar mooy li ñuy tuddee crise économique te teewul sottal nañ ko kon yii nag firndali ci ak yeneen ak yeneen doon ko jaarale ci ay jamono tolloon ci ay tooli àllarba ak joxe addiya ak yu mel noonu kenn seen kem lay gàttal te jamono yi so soppeeku na kon eh, nit ñi nekk seeni jamono ak seeni jumtukaay kon pas-pas bi moom dañu war a gën a yeesalaat tudd na ci tamit euh, wàllu wàllu saytu ci wàllu koppar ci jamono jii ci anam bu bu dëppook jamono euh, ay investissement dugal sa alal fu lay jural leneen tudd na ci wàllu mbay mi tudd na ci wàllu jàmm bi tudd na ci wàllu dem beeg dëkk bi mooy transport bi mënees na cee tudd tamit wàllu mooy tabax yeeg yu mel noonu mënees na cee tudd yu bare bare bare bare xam naa da cee tudd yooyu rek foofu it foofu la jamono toll kon yooyu ay mbir la yoo xamante ni euh, ba faaw jamono bu nekk ak jumtukaay ak seen i xeetu liggéeyukaay yooyu yëpp mënees na cee mënees na cee delluwaat euh, mu ñu mën a jàppaat rek ci li wax ni kon euh, ni man ci tënk yi ñu ci mën a téye mooy ne kon mbir mi du mbiru benn université wala benn école rek waaye benn système bu mat la boo xam ne dafay tàmbalee ci kiy door a dal ba ca njubbaxtal la ni mu ko waxee ci ni ko suñu Muntaxa Mbàkke eh, yàlla ko yàlla doon eh, fan bu gudd eh, di waxe kon système bu gudd la bu yaatu la tàmbalee ci suuf ba ci njobbaxtaan la kon bu jëpp kenn jàpp ne université la nit ñi ñooy wax université rek waaye moo gën a yaatu université loolu aw tur la rek waaye li ci biir moo ca solo ñaareel bi ci war a jàpp mooy mbir mi du mbiru benn fan mbiru ñaari fan waaye mbiru ba keroog euh, alaaxira ba keroog ñu daje Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ñenn ñu nekk nañ xam ni jamono bi ñuy dund lii ci seenu liggéey la ñu sàmm ko ba yëbbal ko yeneen loxo muy jokkalantoo di jokk jokkalantoo ba keroog ñuy jox ba keroog ñuy ñuy daje sëriñ loolu it feeñ na ci discours ci waxi Sëriñ Muntaxa yi ci anam yu wuute tegu xeer wa waxoon na ko fi ci la waxe woon bu mu laal suuf ci la waxe woon tamit ñi may wuutu ñooñee ñee leen di wuutu ñooñee ña leen di wuutu kon mbir mi mbiru du mbiru benn fan du mbiru ñaari fan loolu si bi Abdou Lahad dellu siwaat na ci loolu ne ko kenn ku ne def ci ci boppam ndax gone sax gone sax bu doon teg ab projet am ñaar fukki at di teg projet ñetti téeméeri at boppam taxatut xam ne xam ne leer na ko ni ñetti téeméeraat at du ko fi def asamaan ak mag muy teg projet di wax wax yoo xam ne dañ naan la àpp naa ko fee ñetti téeméeri at te loolu du àpp ba de waaye ba fee ñetti téeméeri at lu bon bon du tàmbalee gis meññet kon lu mu yeex yeex àpp na ko foofu kon boppam taxatul muy wax yooyu na ko kenn ku ne def ci boppam kon ba àllaaxira ba keroog ñu dajeeg sëriñ bi mu di ñu laaj fu ngeen toll ca naaj ya ma fa bàyyi woon loolu incha allah kenn ku ne war na koo def ci boppam muy wartee fam képp lay ñetteel mbir miñ ci war a téye mooy ni taalibe bu nekk kemtu lay kàttanam war naa bokk ci liggéey bi ñi am aw ñaq nañ ko ci def ñi am alal nañ ko ci def te buñ ko sasoo menn at wala benn at wala ñaari at déedéet seen biir dund dañ koy def sasoo ko seen kemtu lay kàttan kenn ku si nekk loo mën nga def ko ci waaye wërta yam ci taalibe yi rek mbir mi mbiru doomu aadama yi mbiru société bi la mbiru àdduna bi la kon ku bëgg lu baax lu nekk bëgg investir ci wàllu doomu aadama mënees na cee dugal mën na cee dugal loxo loolu ñetteelu mbir ci yi war a yiñ mën a téye ci lim wax ñeenteelu mbir ci yiñ mën a téye ci lim lim wax mooy ni euh, man man yi mi ngi fi euh, xëy na pas-pas yi mi ngi fi waaye nag léeg-léeg nos yi moo xaw a des kon gën nañoo woo gën a nos liggéey bi liggéey bi ñu gën koo nos ci la ci lay ëppee daraja ci lay ëppee gëdd ci lay ëppee ab taar kon nos boobu warees na ko gën a bàyyi xel ci biir loolu sax moom ci la proposé jàpp ne euh, nii ñu defal asaka wutal ko ak kuréel noonu lañ war a defal tamit waqf wutal ko ak kuréel wax ko sa waxtaane ko comme ni ñu ko waxee waxtaane na ko fii ci ay bis yu weesu laal na ci bu bare bare kon euh, loolu it proposition boo xam ne xëy ne kilifa yi daañ ko danañ ko dégg mooy ñu wutal ko kuréelu boppam bu koy saytu loolu it dafay dugg ci biir cadre nos bi muy wax nosaat liggéey bi ak coono yeeg effort ndax su loolu mbir yi dafay tasaaroo kenn ku ne noo ko fooge wala naa ko nangam wala ngay jël sa addiya dem joxe ko sëriñ bi direct wala ak yu mel noonu kon nos gi yaakaar naa ne dana ci baax ci proposition boobu wax lu ci ama ama am solo la euh, sasu bi sasu bi wax na wax na ko euh, gis nañ Tuubaa ci kanam li muy def waaye euh, sasu bi taalibe yi tamit dañoo war a sasu buñ nosoon mbir mi nos bu leer bu gën a bu gën a fës mën nañoo dem ba ay compte ay ay compte compte yoo xamante ni ci euh, ci ci euh, transfert d'argent yi ci lay jaar nga xam ni taalibe bu nekk foo toll rek euh, man na ngaa bañ sax joti banque dëgg la am na ay compte bancaire yoo xam ne ca banque ba la waaye am na ñoo xam ne yónnee ko ci seen téléphone moo gën a gaaw ci ñoom gën a yomb nga xam ne bu boobaa téeméer sax boo ko amoon nga yónnee ko ko nga yónnee ko ci kii bi ba tey baax yu mel noonu tamit jumtukaay yooyu war nañ koo gën a jëfandikoo ci lu jëm ci ci li jóg ci eh, liggéey bi te bu boobaa kuréel gu mel ni boobu muy wax mu mën koo saytu kuréel goo xam ne loolu rek moo ko tax a jóg ñu am man-man bi am xam-xam bi téye ko ci lu dëppoog euh, norme yi su ko defee fu nit ku bëgg lu baax nekk ci àdduna ci sa téléphone rek mën nga yónnee euh, euh, yónnee li nga li nga li nga gis na taxawaa wax na euh, taxawaay yu am solo yi nga xamante ni ñi xam ne xëy na yàlla may na leen wërsëg muy borom alal yi taxawaay bi ñu taxaw ci sasoo loolu lu baax la lu ama am solo ñu leen di yaanal ñu am ci ngërëmul sëriñ bi waaye sasoo bi dafa war a doon loo xam ne dafa war a wëy kenn ku si nekk ci ñun ku si nekk bañ a xeeb lenn mu sasoo sasoo sasoo ko su ko defee ku boobaa man jàpp naa ni sax ñooñu nga xam ne dañoo am dañoo nekk ay taalibe ci am ay entreprise ñu sasoo def li ñuy wax ordre de virement wax jox ndigal banque bi ni leen weer bu nekk jëlal leen ma nangam ci sama societé bi yóbbul ma ko ci liggéey bi nga xam ne ordre de virement la yow nga nekk fee nga ñàkk fee nekk loolu da nga koy sasoo euh, loolu borom alal yi mën nañ ko ci yor ay entreprise yu mag a mag bu dee suñ classe yi ay ay góorgóorlukat yi tamit kenn ku si nekk fa sa kamtulaay kattan tool bu ci xeeb dara ñu ubbi ay bunt yu yaatu nga xam ne ci sa téléphone rek da nga mën a yónnee ci sa wàllu ci liggéey bi yooyu yu ci yu ci ama am solo kon dafa mel ne laal na ci laal laal na ci bunt yu ama ama am solo gis nañ taxawaay bi taxaw tamit eh, taxaw na lu baax ci waxi sëriñ bi waxi sëriñ Mountakha bi loolu dafa laaj yeneen jotaay yoo xamante ni dañ ko war a gën a jàngataat gën ko eggale ci mbooloo bi ndax nii mu ko tase fii lii mu ci waxee bari na ci yoo xam ne ay junj la te sëriñ bi day wax ne kon sëriñ bi teel naa leeral nit ñi ne mbir mi du mbiram ñëpp la ñëpp ko bokk ndax kuy dem ba wax ne ñooñu ñi ma fiy wuutu ñooñee ña leen fiy wuutu ñooñee ña leen fiy wuutu bu mu laal suuf ba keroog ñuy dajeeg sëriñ bi kon kooku moom eh, noppi na ci kon nag li ci des mooy ci nit ñi ci boppam ñoo ko war a def mooy seen biir bopp nit ñi ci boppam ñoo ko war a def mooy seen biir bopp bu ñu ci xaar ku ñëw di jël jàpp seen loxo naan leen liggéey baa ngi waaye nag kenn ku ne dox wuti ca ku mu ko ci sa bopp demal laaj ko ku la ko leeral ku ku mu leeroon ci sa bopp ca jotagoo ci woon a dugal sa loxo jëm ko ca dugal loolu ak liggéey mooy doo xam ne foofu la yoon wi dox jëm foofu la Touba dox jëm bu ñu nee Touba nag bu boobaa yi àdduna bépp ñoo ci mën a jariñoo gàggante ko bi sëriñ bi bëggoon euh, nit ñi di ko gàggante ko si tuubaa loolu nañ ko def muy sunu sas te yar ci njaboot gi njaboot gi def ko muy seenu sas ñooñu def ko si yar ci seeni njaboot ñu def ko seenu sas ba keroog ñuy dajeeg sëriñ Touba danañ euh, delluwaat di sant bu baax a baax sëriñ Abdoul Ahad ci euh, waxtaan bi ni mu ko euh, téye euh, jot leeku ni am na solo loolu lool kon ñoo ngi ñaan bu baax a baax a baax yàlla jàppale Sëriñ Muntaxa Mbàkke ba ba ni Sëriñ Fallu demoon defoon ba bi jumaa ji sottee def ak xasida ñëw ci barab bi yeesalaat ko wax sëriñ bi ni ko mel ne ku koy jëppal liggéey bi loolu it ñoo koy ñaanal bu baax a baax te ñu ànd koog moom ñun ñëpp kon loolu daal mënees na koo tënk ci waxtaan wi Euh, waxtaan bi nga xam ne sëriñ Abdou Lahad euh, waxtaan na ko tey euh, kon mu nekkoon benn jotaay boo xam day mottale rek yi weesu woon njàngum Touba ak tolluwaayam bii ñëw nag njàngum Touba ci ñëw li ñu dëgmal ca projet bii sëriñ bu tax a taxawal te wuute ci ay baayam ak i magam yi ko fi jiitu woon ñu ànd koog moom loolu ab mottale ca la boobu kon ñuy dellu di sant moo kuréelu daayira bi di sant tamit mboolem jumtukaay yi nga xam ne ñu ngi koy jàllale di ci jiital euh, jumtu kii euh, site bi nga xamante ne waa Moukhaddamatoul Khidma jumaay Tuubaa yi ñoo koy def ak yeneen site yi nga xam ne ñu ngi fi di ko jàllale ci yàlla àndee dëppoog euh, ñaar fukki fan juróom-ñett ci weeru koor bi fanweeru fan ci weeru avril beneen tomb dana ñëw ñu ko ci xew-xew bii ñu jub ma ci muy korite gi ak muurum koor ak julli korite lan mooy ay atteem ak i teggin ki ko nar def bu ci yàlla àndee mooy sëriñ Abdoulaye Al Bousso moom sëriñ Afia Bousso moo ko nar def kon mbokk yi yàlla na ñu jotaay bi ci fii ak ci biti loolu mooy indi woon tey ñu dellu di déglu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa